nekk turam ak santam yéen ñëpp équipe bi as mën naa si wax lu bari lu bari bari kon duñ pare fii ak ah, li ñuy def fii moom suma xarit la bu yàgg mën naa wax ni sa romb nen xarit parce que bi may xamante moom je crois que c'était en 2004 suma suma juumul depuis 2004 ñun ñaar noo nekkoon doon euh, France après ñu jóge France dem nek nek Italie bi nekkee Italie après foofu la nek dëkk nañ sax maax moom ah maanaam moom dëkk nañ je crois ay ñaari at si biir loolu man après man ma ñëk ñibbi si ay quelques mois après nous ma delluwaat nous and man ak euh ñëw Sénégal bo ba léegi moom mu entreprise man ma créer sama entreprise mais bobu léegi dañuy and ma xam ko mu doon ko xamné ambition bi nga xamanteni mom la am Sénégal am ko fi ci Thiès ñëpp diko ko té da fay def bolé wu ci wax té loolu dafa am solo ci doomu adama idée yu mu am bi nekké Europe bi mu ñëw fi yoy la fi teg. Euh, ñu gis ni tamit euh, le directeur général monsieur Bounama Fati dafa inciter trop pour ñu ñëw fi tay Thiès seet la ngir def interview bi ak yow bëggoon xam sa relation ak euh, monsieur Bouna monsieur on a fait presque maa euh, ans presque def nañ ko man ak moom nekkandoo Europe demandoo si dëkk yu bari. Mhm. sax mhm. Euh, moom it mu xam ni man ku gëm liggéey laa moom it mu nekk ku gëm liggéey mën naa ne man ak moom sax ñoo ñibbisee doo Sénégal mm-hmm. benn année jour bi ñu ñibbisee maa moom dafa taal oto ba taal oto ñu jiit la dawal oto ba Sénégal jële ko Italie kon xam nga kooku am na lu ñu lu ñu partagé lu bari mm-hmm. mu gëm liggéey nag ma it ma gëm liggéey donc yàlla mu jël yoonam ma jël sama yoon presque dix ans yi nii mi ngi si yoonam ma ne sama yoon mm-hmm. ba tey ñu dajawaat kon loolu xam na gëm-gëm la ak liggéey mais xam na ne maa ngi si xelam mi ngi sama xel Mm-hmm. loolu moo waral daje bi amaat tey nii. Mm-hmm. ñu bëggoon xam euh, yan projet ngay préparé fi toll nii. waaw loolu nag dama koy nëbbu tuuti wax naa ko boros naa la ko. Mm-hmm. ni la taxawal naa mouvement boo xam ne taxaw na. kees doobu la tudd. donc taxawal nañ ko ba pare. incha allah bés bu ñuy lancé ci dinañ mouvement bi. yéen yéen di ngeen ñëw. incha allah yéenay priorité bu soobee yàlla dinaa si waxtaan ak moom. comme ça ñu ngi war a waajal lancement bi. defe naa mën na sax si mois de janvier bi incha allah soreetul bu ko defee li ñu war a bi mm-hmm. di ngeen